bi barakati cheikh ahmadou kara mbàkke bamba doonoon aw turam taal moo nekkoon aw santam tudd yàlla la defoon mbiram xel yéppa ànd dal ci moom bamba doonoon aw turam taal moo nekkoon la defoon mbiram xel yépp ànd dal ci moom góor yàlla yépp ñoo la jooyi maga ki ndaw ñépp a ngi jooyi sa dem gi kat daa xëy ni lay ci seen kanam ñu ànd jooyi guur yàlla yépp ñoo la jooyi maga ki ndaw ñépp a ngi jooyi sa dem gi kat daa xëy lay ci seen kanam ñu àndu jooyi te bul ragal ca fa nga jëm ku tedd kii mooy ka fa mën mën ci ginnaaw man ca kanam bur yàlla moo ko jox la gën joxoon ko mul keek malakuut moo ko joxoon jabbaruut moo def bésam yépp di feet ndax kat mbiram lépp di mbóot joxoon ko mulkeek malakut joxaale woon ko jabarut moo def bisam yépp di feet ndax kat mbiram lépp di mbóot moo tax ñu gëm ni dinga naan ci géej gi kaw sarate naan lu di géeji la ban yal na ko def te mooy li gën bu ko defee rek nga texe bu wéra wéra te doon mbégte kenn du fa rus doo fa bette lépp na doon ay ndam kese mboolem jullit yépp a ngi ñaan ngir nga dajeek sëriñ Usmaan moo fi doon tey amir sultaan yal na la yi ne leen amiin mboolem jullit yépp a ngi ñaan ngir nga dajeek Sëriñ Usmaan mi fi doon tey amir sultaan yal na la fay ne